auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yaa himmati shay'in udril lana bi hadal maqdari wa taati fi bi nazratin taati lana bi zafiri wala hawla wala quwwata illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma ñëw ak yéen ci dars bi ñu ngi doon jàng téere matnul ajrumiya nga xamante ne moom lañ di jàng yax bi waaye chara bi mooy firi bi ñu ngi sukkandiku ci beneen téere bu ñu tuddee tuxfatu saniya bi charxil muqaddimatil ajrumiya bu Muhammad Muhiddin Abdul Hamid ñu ñëw tey ci ñetteelu buntu ci dars bi ñetteelu buntu bi mooy mandargay i'rab mooy xam yan ñooy màndargay i'rab mooy baabu maarifati alaamatil i'rabi màndargay i'rab nag bëri na dina am lu ñuy wax rafa li rafi arbaatun mu ne xaala wax na li rafi arbaatu alaamatin mu ne rafa ñeenti alaama la am ñeenti màndarga ñeenti signe le signe de la rafa c'est quatre donc on sait que le signe de base de la du rafa c'est la damma en général toujours da ngay dégg ci grammaire ñuy wax ci analyse ma marfuun bi damati waaw ñu ne marfuun bi damati lañ daan wax ñu ne lépp lu ñu marfu rek ñaareel damm lañ ko rafaaye waaye damma nañ jàpp ne moom mooy loolu mooy place am su ñu waxee marfuun damm mooy titulaire waaye ndakate damm mën na am ay lieutenant wala ay remplaçant lieutenant yooyu ak remplaçant yooyu ñan la mooy bi maanaam su fa nekkut ndax waru fa nekk dinañ ko jàng ñu ne boobaa lieutenant yi al waaw lay doon wa alif ak la lettre alif wa nuun ak la lettre nuun kon bu fekkente ne marfuun baat baat dañ ko rafaa mooy mais waaw nga fa fekk waaw xëccaan wala alif xëccaan wala nuun boobaa kon dañuy wax ne marfuun bi alif wala marfuun bi waaw wala marfuun bi nuun yaa ngi dégg waaw waaye nag titulaire bi mooy marfuun bi damma wa aqulu mu ne borom charx bi nee na tastatiu an taarifa anna al kalimata marfuatun bi wujudi alaamatin fi axiriha min arbai alaamatin mu ne wa aqulu dinaa wax tastatiu di nga mën a xam yow miy jàng grammaire an taarifa anna al kalimata ci nga xam ne ndaka baat marfu atun dañ ko rafaa bi wujudi alaamatin ci teewaayab alaama yi mandarga yi fii axiriha ci mujjantalam min arba'i mu ñuy ñeent alaamatin signe mandarga waaxidatun bi ci njëkk min ha ci ñoom signe yooyu asliyatun mooy bi nga xamante ne mooy kosob cosaan bi mooy signe signe de base bi wala boog nga ne mooy signe originel bi yaa ngi dégg moom mooy waxi ak dammatu mooy damma wasalaasatun te ñett yi furuun ay bànqaas lañ anxa ci moom signe boobu noonu nga xamante ne mooy damma waxi ñett yooyu lan la al waawu muy waaw wa alifun ak alif ak nuun muy nuun yaa ngi dégg kon lii tax ñu naan marfuun bi marf rafa baat suñ ko rafaay rek dafa am lu tax yaa ngi dégg léegi ñu war a waxtaan ci mawaadi u dammati mawaadi u damma moom mooy mawaadi u damma moom mooy place u damma les places de la damma xaala fa amma dammatu wala boog wàccuwaayu damma damma fan lañ koy appliquer mu ne qaala fa ama dammatu fa takunu alaamatan li rafi fi arbaati mawaadi a al ismil al ismul mufradi waaw fil fil ismil mufradi waaw moo tax ñu kasara ko kon da ngay ne al ismil mufradi ndax fii bi wa jam i taksiri wa jam il muannasi saalimi wal fi'lil mudaari'i allazi lam yattasil bi aaxirihi shay'un mu ne place damma fa takuna alaamatan li raf i moom nga xamante ne dina nekk alaama raf fii arbaati ci ñeent mawaadi mawaadi à place benn ci al ismul mufrad ismul mufrad mooy le nom au singulier mooy tur benn tur boo xamante ne benn tur rek la du ñaar du ñett du du du turu turu mbooloo yaa ngi dégg yaa ngi dégg mu ne wa jam i taksiir yi jam u taksiir mooy jam u mbooloo waaw mooy daanaka mbooloo su ñu nee nag jam u taksir mooy jam u mooy mbooloo moo xamante ne daanaka mooy dañ koo daggate taksir mooy lu ñu daggate c'est-à-dire mooy baat bi am na luñ ci dindi wala luñ ci yokk yaa ngi dégg ci cosaanam loolu dinañ ko jàng ci kanam yaa ngi dégg kon ba ci njëkk mooy al ismil mufrad moom damma lay rafaaye wa jam i taksir yi jam u taksir moom it damma lañ koy rafaaye te nee naa leen léegi jam u taksir mooy jam u bu ñu daggate bi maanaa cosaan ba ni mu meloon mufrad ba dañ bàyyiwuñu ko ci noonu dañ ko changé daggate ko am luñ ci yokk wala ñu am luñ ci wàññi wala ñu boole yépp mooy yokk ak wàññi ko loolu dinañ ko jàng doona ko daanaka kon baat bi originam mën nañ ko changé moo xam ñu wàcc ko wala ñu yokk ko am na tamit bu ñuy wax wa jam il mu annasi assalimi mooy jam u boo xamante ne dañ ko jigéenal assalim boo am daje aji mucc mooy jam u boo xamante ne nag mufrad ba na mu meloon ca cosaan la da ngay gis ne wàññiwuñu ci dara waaw lenn rek moo am mooy dañu am luñ ci yokk luy tegtal ne lii mbooloo la jam u la yaa ngi dégg mu ne wal fi'lil mudaari'i allazi lam yattasil bi axirihi shay'an mooy verbe boo xamante ne dafa nekk à l'inaccompli boo xamante ne jokkuwul ci mujjam ja benn araf boo xamante ne dina tegtal ne ñaar la wala mbooloo mu góor wala kenn ku jigéen ku ñu jàkkaar lool wala mbooloo mu jigéen wala nuun wala nuunu tawkiid boo xamante ne day feddali boo xam bu woyof bi wala bu ñu sadd waaw bu ñu sadd mooy bu diis bi kon daal feelu mudaari a bu fekkente ne dara jokkuwul ci mujjëm ah kon damma lay rafaaya yaa ngi dégg waaw mu ne wa aqulu takunu dammata alaamatan ala rafil kalimaati fii arbaati mawaadi i dina nekk damma mas damma nekk mandarga ci wane ne baat bii dañ ko rafaa ci ñeent barab mu ne al mawdiul awwalu mooy barab bu njëkk bi mooy lismul mufrad ñaareel bi mooy al mawdiu saani mooy beneen ñaari bërëb bi mooy jam u taksir wal mawdiu saalis ñetteel bi jami jam ul mu annas saalim mooy jam u bu ñu jigéenal te nekk aji mucc waaw yaa ngi dégg fii naat ak man ut la kon da ngay ne al mu jam ul mu annasu jam ul mu annasi assaalim wal mawdi wal mawdu mawdu arrabi al fi'lul mudaari mooy fi'lul mudaari boo ma allazi jok lam yettasil jokkul bihi ci mujjam alif isnayni mooy alif buy wane ñaar wala waaw jamaa wala waaw buy wane mboole wala yaawul muxaataba wala du caagin yaa yaaw ki ñuy waxal wala nuunu tawkiid ah yaaw muxaataba wala wala nuunu tawkiid wala nuun boo xamante ne dañ xafiif day dëgg day dëggar dëggal bu woyof aw saxiir wala bu diis wala nuunu niswatin du caagin tamit nuun boo xamante ne dañ ko jigéenal wala buy wane ne jigéen la yaa ngi dégg bu dee baat bi benn ci yii bokk fi'lu mudaari bi benn ci yii signe yi nekkul ci moom kon damma day rafaa ñu ñëw nag ci ismul mufrad mu ne fal muraadu bihi li ñu namm ci ismul mufrad xaaxuna ci bërëb bi ñu nekk di jàngale mu ne maa lay sa musannan mooy bépp baat boo xamante ne du baat bu ñu tasniya mooy baat boo xamante dina tegtale ne ñaar la wala majmu an wala boo xamante ne dina tegtale mbooloo la wala mulxakan bihima wala boo xam dañ ko yéegal ci kenn ci ñoom ñaar waaw mooy boo xam daal du ñaar yi benn si yu ma ñu wax wala min al am asma il xamsati duyit moom ismu mufrad boobu na fekk bokkul ci asmaul xamsati te asmaul xamsati incha allah ci kanam di ngeen ko jàng ñu gën ko xam waaw ndax ñoom dafa am neneen lañ leen jagleelee noo xamante ne ñoom lañ leen di rafaa lu bokkuleeg damm mooy asmaul xamsa mu ne sawaawoon aji yemoo la ak kaanal muraadu la ñu namm bii ci moom muzakkaran moo xam lu ñu góoral la mislu comme exemple muhammadin comme su la neexee tamit nga ne mislu wala nga ne misla ñaar yëpp nax wu mën na ko lay waaw mu ne misaal bu mel ni suñu waxee muhammad turu góor la waa aliyin ak ali wal ah aliyin mis soo waxee misli nag da ngay ne muhammadin su deen mislu nga ne muhammadun yaa ngi dégg kon mislu muhammadin waa aliyin waa xamsata donte am na taa marbuta xamsa waaye turu góor la am kaana wala almuraadu nekk na lu ñu namm ci moom bihi mu annis mu annasan mislu lu ñu jigéenal comme lu mel ni fatima waa aishata wa zaynaba ah nga xam ne yii ay turu jigéen lañ donte amuñu taa marbuta mu ne wa sawaun ba tey aji yemoo la akaanat ak dammatu maskay dam damma lonk boobu zahiratan muy aji feeñ kama fii nax wi comme ci nu muy dikkee ci misaal bii ma bëgg bëgg a jox mu ne xadara muhammadun teew na muhammad mu ne wa saafarat fatimatu ak tukki na fatima am kaanat muqaddaratan lu mu nekk lu ñu nattala naxwu comme par exemple xadara alfata wal xaadi wa axi ah su ñu waxee lu nattali nag mooy loo xamante ne feeñul ci mujjam ah kii mooy lu ñu nëbb xadaral fata teew na ceem si mooy xale bi wala esclave bi wal xaadi ak attekat bi wa axi ak frère bi wa naxwu ak lu mel ni tazawajat layla wa noma ñu ne marié nañ wala boog sëy na marié na layla ak noma ndaw suñu wax layla ak noma ñu ne ñoom marié nañu yaa ngi dégg bi maanaam ñooñu marié wu nañu ak ñi seen ay borom kor waaw mu ne fa inna muhammadan naka muhammad wa kaza ak naka fatimata ñu ne marfuani ñoom ñaar ñëpp dañ leen rafaa wa alaamatu rafihima te seen màndargay rafa ñoom ñaar ad dammatu azahiratu mooy damma bi nga xamante ne dafa biir dafa feeñ ñëpp gis ko yaa ngi dégg mu ne wal fata baatul fata bi firi as cem wala waxambaane wa misluhu ak layla mooy turu jigéen la wala noma wala noma ngam turu ñaari jigéen lañ marfuatun marfuatun ñoom ñaar dañ leen rafa wa alaamatu rafihinna te seen màndargay rafa ak dammatu moom mooy damma muqaddaratan muqaddaratun boo xam ne dañ koo nëbb alal alifi ci an ci alif man a amin zuhuriha ci kaw alif bi dañ koo damma ndax tere na min zuhuriha ci ab feeñam moom damma damma boobu ak taazuri ndax jafe bu mu jafe comme par exemple ñu ne xadara al al fata u ah kama alif maksuura alif moo fa waroon nekk léegi ñu war a wax al fata u day jafe moo tax duñ ko génnee waaye nag marfuun bi damma la yaa ngi dégg mu ne mën a amin zuhuriha at taazuri mooy jafe bi mu ne wal xaadi liy firi attekat bu góor comme juge marfuun wa alaamatun raf rafuhu dammatu muqaddaratun alal yaay bii tamit même chose la waaye tere nañ pour mu feeñ si si ñu damm bi ngir lan a siqalu ndax dafa diis kon mënuñu wax alxaadi yu day diis moo tax ñu ne alxaadi waaye foofu normalement damma moo fay nekk wa axi baatu frère marfuun moom it aji dañ ko marfu wa alaamatu rafihi alaamam bi wane ne dañ ko rafa a dammatu muqaddarat mooy damm boo xamante ne dañ ko nëbb maa qabla yaa yaa il mutakallim bi li jiitu ah yaa al mutakallim maanaam min zuhuriha boo xamante ne tere na ab feeñam xarakatul munasabati mooy masque bi nga xamante ne moom lañ soxla moo war a correspondre pour mu mën a dëppoo ak ak ak yaawu mutakallim bi yaa ngi dégg bi maanaa suñu waxee ax yi yaa bi masque kasara boobu nga xam moom lañ def ci kaw xaa bi moom daanaka yaa yaa mooy xëcc kasara jàngoon nañ ko mooy yaaw xëccaan boobu léegi comme yaa bi fii moo fi représenté aji wax bi mooy yaaw mutakalim celui qui parle yaa boobu kon il faut ñu indi masque boo xamante ne yaa bi dina ko mën indi moo tax ñu masque kasara ci suuf kon nag yii ma la jàngal nii tey mooy barab yi barabu ismul mufrad yii yëpp ay ismu mufrad lañ la indil ay nom singulier yoo xamante ne damm bi mën naa feeñ bu fekkente ne lu koy tere nekku fa wala it damm bi ñu nëbb ko bu fekkente ne liy tere mu feeñ nekk na fa kon dañ ko war a nëbb yaa ngi dégg kon li saamu li is misaalu ismu mufrad mu ngi noonu